Doudou Issa dafa nekk ni koo xam ne moo ñu yar ñun ñëpp ñu màggee ci keppaaram yaroo ci keppaaram mu jàngal ñu lu bari it defe naa li muy képp li muy jàngal mooy avoir le sens de la famille te boo gisee tey biscuiterie yi ci ñeenti mandat yi nga xam ne joxe nañ ko ci conseil municipal yi depuis 96 ba léegi ñett yi moom moo ko jël donc am na benn pacte boo xam ne moo lié Doudou Issa Niass à la aux populations de Biscuiterie yi loolu nag boo ko gisee mooy dafa nekk ni koo xam ne mosul génn biir Biscuiterie yi dafa jaxasoo woon ak ñëpp nekk ak ñëpp boole ñëpp boole ñëpp bi nag boo amu ci woon xaj-xajloo kii parti bi la bokk ak kii ba la bokk man mi ma wax ak yow illustration laa ci parce que man moom bokkuñu woon champ politique waaye def na ma ma nekk deuxième adjoint su ko neexoon bu ko def te élection yi moom moo ko gagné woon loolu waaye ne rek Doudou ban façon nit la sur le plan sportif tamit nañu lu bari ñëpp xam ne dirigeant Dia la woon dirigeant Niary Tally si président de la aussi ci club bi bi ñuy commencé yu bari moo ñu ko doon defal duñu si sax ba ñu nekk tey ay kilifa ci loolu ko kooku moom mooy Doudou Issa Niass di aussi taalibe Tidiane bu mag a mag a mag ñëpp xam ne aussi digganteem ak waalo waalo waalo piir la bokk ay mbokkam su leen bàyyi gannaaw amul lu ma leen defalul dëkkandoo yi mu nekk defal na leen ko commune am aussi woy na loolu muy aussi un homme fidèle parce que gis nga parti bu nekkoon ñu parti socialiste am na ay moments yu difficile yu mu traversé waaye du Issa fa mu nekkoon fa la nekk ba léegi donc muy homme de valeur donc loolu yëpp boo ko rassemblé rek xam ne du Issa Niass mooy nit pire la woon nit ku baax la woon won nañu yoon bi nag la woon def yëpp def na ko parce que quand même ba ci bi sax muy administrer commune bi donc kooku li woon def yëpp wane na def na ko di des yàlla moo ñëw dañ koy nangul yàlla léegi nag am na yoon wu ñu woon ñun ñu bokk ci booloo bokk ndey bokk bàyyi dafaa ne jëm a doxal loolu moo fi nekk mais du usage daal mun ñu wax ne aw deseelatuñu dara ñun waa Biscuiterie yi ak ñi nga xam ne ñoom lañ nekkoon ñoom ñoo ko desal